nañu déglu boobu feneen fu ñu bëggul donc ñoo ngi leen di jégalu yéen ñuy seetaan problème mu temps la problème mu duplex la man li may wax du samay coobare régie ñoo may wax man dañ may guider may wax li may wax c'est pas pour le faire vexer sama mag la dama ko respecté dama ko jox te te cër laa koy musa jox nag parce que suma grand frère la du ma la musa yàpp benn yoon sama xarit nga sama soppe nga sama mag nga nii noonu Balla Gaye jëlal bu ko defee ñoo ngi Balla Gaye ngi kontaan ci yow di kontaan ci Boy Niang nit ñi ñëpp lu ñu fi wax lépp wax la boo xam ne dafay defar bis bi dafay jaay bis bi Balla Gaye le premier janvier mu doon premier janvier mu doon date historique mbër yu bari yu mag yu bëri yu bëri ci yow nga bokk ci mbër yi tey nga am adversaire boo xam ni mun nañu sarak la mu nekk am adversaire boo xam ni tamit xam naa ni ay qualité naw nga ko parce que dafa liggéey ba egg si nga am adversaire boo xam ni tey bu ñu ni woon xale yi nga xam ne ñoom nga yaakaar ci làmb xam naa ni booy cité di nga cité Boy Niang le premier janvier bés boobu nga war a jàkkaarloog Boy Niang Balla Gaye lan ngay wax Boy Niang mi ngay jàkkaarlool ak say fans ak téléspectateurs yi ak aduna bi. waaw li may wax si moom mooy jàmm ak salaam yàlla defal ko defal ma jàmm. que euh, ni làmb moo ñu boole kenn ku nekk boo doon xool ci palmarès kenn du bëre kenn euh, làmb moo baaxu noonu waaye jàmm lañ ko ñaanal làmb moo ñu boolee ñu war a bëri day dañuy bëri incha allah di ñaan yàlla su borom may ma ci ndam nekk mbër bu ma respecté mbër bu ma fonk ah. na ñi ñi xam ne rek man li ma def ci làmb defuma dara ku jàpp ne damaa def dara ci làmb yaa ngi nax sa bopp commencé gu ma sax defuma dara dara dara dara ci làmb sama objectif dépassé na niveau bi nga xamante ni ñu ngi yaakaar ne Balla Gaye dafa def lu extraordinaire non non non. Balla six ans nga dégg roi des dafa góor dara ci làmb. loolu dara. Balla Gaye dégg nga mbéj daan mbër yu mag yi fi nekkoon nga ni defoo dara ci làmb. kon Balla munoo wax loolu ba mu ñëwaat tey. moo tax donc daal jàll na. jàll na yàgg na. man loolu laa jàpp daal. te léeg damay dégg ndeysaan làmb ñu ne ñu ay encadrement am nañu ay saf boo ñaa jotewuñu dara ba mu koy jàppal xeen naan damay ñëw ci làmb ji di ko wane ak di ko bëri képp ku ko yaakaar wala ngay xalaat xalaat bu noonu sax yaa ngi nax sa bopp jàmm laa ko yónnee may ko xaalis moom nga xaalis làmb la def nag képp ku ci yaakaar ne Balla Gaye xolam bii lay bëri naan da koy topp ci lii wala ci naa lan lañ jote làmb xeexuñu xuluwuñu jotewuñu làmb daal lañ si muy làmb ji ma respecté mooy bu làmb waa géej waa muy làmb boo xam ne sumay supporter dañ ko respecté bu ma jógee fii mu ne wax ak yow entraînement la jëm parti Seydina Mohamed mu nekk lu ma jaral maa ngi ñaan yàlla wax na ko ba mu solo sànq nee na ëpp li nga xamante ne def nga ko ci entraînement daj ko yàlla na yàlla may ndam maa ngi ñaan yàlla ñaan boobu yàlla nangu mbër la may mbër kenn ku nekk ku ëpp loo def ci ay coono rek yàlla na la yàlla may ndam incha allah. mu ngi noonu Alaaji Ngañ kon dañuy delluwaat Pikine euh, fële ca Boy Niang ak Alaaji Ngañ Jaañ ak ñamu nekkal Balla gay 2 dégg li mu wax nee na moom jàpp ne ci làmb Balla Gaye 2 bu duggee ci làmb jom juróom def juróom benn at la dégg roi des arènes daan na grand champion Yaxya Yaxya Jóob Yékini daan fii ay champion waaye moom jàpp na ne ba léegi defagul dara ci làmb kon Balla Gaye 2 kon mi ngi waaj bis boobu nga xam moom mooy premier janvier 2023 fii ci année nationale Alaaji Ngagne Diagne kon ma delloo la kàddu gi euh, yaa ngi nga nekkal bu ci kanamee tudd ñu dellu si waat ak yéen jërëjëf waat di jox nga mooy premier janvier 2023 fii ci arène nationale Alaaji Ngagne Ndiaye kon ma delloo la kàddu gi ah, yaa ngi nga nekkal bu ci kànnee ko ñu jëli soit ay yéen may ba baleen ma baleen ma tuuti jërëjëf gànn eh, gànn daf ma siif waaye dama ko bëggoon xàllal waaye comme siif na eh, eh, dafa dañ la pooj Balla Gaye dafa dafa dafa wax mm-hmm. ba ñëw ci wax ci nga waxoon mm-hmm. ku gën a sonn mm-hmm. ku ëpp coono yàlla na daan foofu la ñëwaat amin yàlla yaa rabbal alamin ku dàq bëre ku dàq xeex yàlla nga am ndam insha allah rek maa ngi koy nuyu bu baax waaye damay nuyu rek sama papa Siré Dia ak famem ak mu monsieur Gomis école la sagesse Tëngéej maa ngi koy nuyu ak suma xarit suma doom day boo xam ne nee la daj ci combat bi di ma jàppale te moom nee na bu ma ko tudd moo tudd turam donc xam na xam na ni moom laay waxal maa ngi lay nuyu bu baax gis naa taxawaay bu baax a baax Ibrahima Diop Kajoor production maa ngi lay nuyu Ousmane Fall Batora Fatou Mën a Pape Sagna mbay Amadou du jara mais ab maman Mame Diarra Fam maa ngi koy nuyu Omar Ndoye responsable politique maa ngi koy nuyu bu baax Papa Cissé doomu Pikine maa ngi koy nuyu Idrissa Gana Gueye Cheikhou Kouyaté maa ngi koy nuyu baax Mbaye Diagne Babacar Xuma fàttewu ma leen daaw da mbaw xaritu interna xaritu maaraw international maa ngi lay nuyu bu baax a baax fàttewu ma waa Tiwaawan fàttewu ma ñëpp di wax ni rek xam nga baala moom comme li mu wax rek loolu moo am laamu moo ñu boore ñu war a bëre comprendre nga combat bi nag dafa nekk combat boo xamante ni dañ ko fonk bu baax ànd ak suñu mbokk moom bu jàppee ni dafa fonk combat bi benn rek man fonk naa ko mil mu joxe bakkanam man sama bakkat ak sama ruu yëpp dama koy joxe amul benn problème làmb moo ñu boole ñu war a bëree mu nekk suñu ñu fekk ko ci làmb cër boobu musul dañ comme ni mu ko waxee rek amuñu benn jot problème bu ñu jotee musuñu am benn altercation ba daje fenn wala histoire bu xuloo làmb rek moo ñu boole bis bi ñu koy waaj ak ay mbokkam moom muy waaj ak ay ñun dañuy ñaan suñu borom defal ñu ndam incha allah le fait que li ñuy bëri ak li ñuy indi loolu moom ñun la concerné quoi ak suñu staff ak suñu ak suñu ay entraînement ak suñu ay papa yu bëri yoo xam ne ñoo ñu yor. donc moom dama koy wax ne rek comme li mu ñaan noonu yàlla na ko suñu boom def combat bi ku ci gën a daj ay coono ku ci gën a liggéey ku dàkk bëre ku dàkk xeex yàlla na suñu borom may te moom tamit lu mu ñaan nee naa amin incha allah yàlla na ko yàlla def. Mm, yow euh, nee naa amin dégg yëpp ci kaddu. Mm-hmm. dégg ko fële ca géejawaay dégg ko fii ci ay techniciens ñu wax ko. Mm-hmm. lan nga lan lan ban jàngat nga ci indi. waaw mooy combat bi comme ni nga ko waxee rek dafa nekk combat boo xamante ni man dama bëggoon sax wax bi néew daal. parce que combat jëf la daal. xam nga dëgg lii moom dafa bokk ci contrat bi di nuyu makan bu baax di ko remercier il faut que ñu ñëw wax. waaye boo xoolee def na ay temps maa ngi suma rukk ànd ak suma ay mbokk di liggéey. donc nag wax ji dafa bëgg mu néew daal parce que xam nga nekkul combat wax combat jëf la te man dañu war a jëflante bu baax a baax. di wax ne rek comme dégg naa ne lu ñu waxee mais làmb ji du làmb ndaxante. làmb ji du ku ci bëgg am dara sax du ñu naxante amu si man ak moom dañoo war a xeex bëri amateur kontaan. may ma tuuti euh, Saala euh, euh, Balla may wax Balla mën na réagir à tout moment voilà ils ont dix minutes ñoom ñaar mën nañu wax à tout moment acca continuer Balla mën na mën na répliquer à tout moment waaw damay nuyu sama papa El Hadji Mansour Mbaye ak famem sama mbokk géwél yi fépp fu bul géwél nekk maa ngi lay nuyu bu baax a baax instant bi nag xayma Cheikh na Cheikh Saad bu dafa nekk di def tournée xayma yëpp ñu ngi def tournée ñoom ñëpp mu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax di nuyu waa kër Cheikh soo maam Cheikh Ibrahima Ndumbaan waa këram waa kër Cheikh da Caraw waa kër Cheikh Pate Sarr Cheikh yu Cheikh na Sarr bu soobar waa Digaan waa Lubudu fàttewuma kenn maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax. Balla dafa ne defagul dara ci làmb ji. Mhm. maanaam dafa mel ni ci yow la bëgg a dooree nag. waaw loolu xalaatam la rek. loolu xalaatam rek lu mu def ak lu mu deful ci làmb yëpp ñun ñëpp xam nañ ni def na des ci làmb parce que la xam nga. daan ay daan ay champion jot na roi des loolu ñun amaguñ ko konku moom. noonu la gisee rek mais ñun jàpp nañ ni def na dara ci moo te ñëpp xam nañ ko donc li ci am solo rek mooy ñun ñu serein xam bis bi lu mu ñu jaral ak fi ñu jëm ak fi ñu jugee ñu nekk di liggéey ànd ak suñu ay mbokk incha allah suñu borom defal ñun dama ci bàkk seen na Muhammad sallallahu alayhi wasallam euh, li ma koy laaj rek mooy xam naa ne sa staff ak ñi ngay àndal gëm nañu ne man ngaa am dara ci combat bi moo tax ñu jël ko mais majorité bi ñu bëri ne nañ da ngaa bëgg a bëreeg Balla rek mais amoo bagage yu daan Balla ñun loolu leen di tontu. waaw loolu am na solo xam nga nag père boo gisee xam nga làmb moom fi toll nii am na foo xam ne foo tollee rek ku nekk ak sa gis ba pare comme léegi Sidi euh, dafa bari ba pare communication bi léegi dafa bari ku ne am nga pour wax ci làmb waaye man ñi xam booy ñaa xam fi ma déparé ci làmb ba fi ma yegg si nii amul mbër bu nekk di tàkk ngeen te mënuma laa daan. maanaam bu fekkee da ngay dund làmb rek nga faral ma wala nga ñàkk ma faral xam nga ne amul mbër buy tàkk ci làmb te mënu ma laa daal. ma gis nga waat ci ku dàq bëre. Mhm. te ñu ñu ne Balla la dàq bëre ñooñu loo leen di wax. waaw loolu Balla moo dàq bëre léegi man ma tontu loolu tontu xam nga. dama ne maa moom ku dàq bëre ku dàq xeex ku liggéey ci combat bi ku gën a daj ay coono ci combat bi yàlla na suñu boom may ndam te xam naa ni moom nee na amin ma dem nee naa amin incha ñuy wax ni moom moo ma dàq bëre moom maa moom dañ dañ bëre weccoo dañ xeex incha allah su boobaa maanaam comme li may wax rek laa moom dama bëgg lu ñu ciy gën a dem rek ñuy gën a découvrir boo Niang lu nëbbu woon ci moom muy yenn ñuy gën a découvrir Boy Niang te moom xam naa ne dina découvrir moom leneen ci man loo xam ne moom xamagu woon wala leneen làmb xamagu woon parce que man dama dama dama tar bi làmb man làmb dama si juddu lu ne laay bëree sama papa mi ngi koy wax léegi mu toog fii di wan ni tournoi Ndeye Ndiaye taay boo fay ñëw hmm. boobu dama jógee école jàngi ñëw ci tournoi bi te boobu ñu ngi ci cent douze litres da woon ma ñëw bëre bëre bëre ba te billet d'avion lañ tegoon ak cinq cent mille ma jël ko te boobu amaguma sax dix-huit ans donc nag boo nee mënuma daan mbër te foofu xam nga ne mbër bu ne nga fa mbëru séeréer lu nga fa ku ne ak ni ma lay daane bokk may daan sa morom donc moom bu jàppee ne moo ma daak bëre wala ay nitam wala ñu jàpp ne moo ma daak xeex donc dama ci dara rek damay ñaan suñu borom may ñu tarak fekk rek bu bis moom. waaw waaw laaj waaw Alaaji Ngañ. waaw. waaw Alaaji Ngañ. Alaaji Ngañ. waaw Balla Gaye. Euh, Balla Gaye dégg na li Boy Niang wax mais ñoom ñaar dafa mel ni ñoom ñaar dañuy dañuy dañuy naxante naxante bi boo ko déggee mooy Boy Niang bu ma dee xool. ci communication bi li xale yi naan ñu ngi yuus Balla Gaye Balla Gaye tam ci communication bi ñu ngi yuus ki nga xam ne moom mooy Boy Niang Balla Gaye lii Boy Niang wax dégg nga ko baax lan nga ci tontu. waaw jërëjëf euh, Saliou Gueye maa gërëm euh, waa Gétt Ardo maa ngi gërëm waa Gétt Ardo maa ngi gërëm euh, maa ngi gërëm waa Njaaj di gërëm waa Waalo Waalo waa Sero bu baax a njëriñu ak sëñ Alaaji Maalik ak waa njëriñu ak sëñ Babacar baax a baax waaw làmb la rek xam nga làmb moom yaa mën wala mënoo Sénégalais mën nañu gisee du ma gisee wala wax Balla Gaye mën na bëree wala Balla Gaye gis nañu ko dàq bëri ba man du ma gisee quoi mag su mbargaan yi doon toog seetaan naa may bëri soo perte mbéy mi seetaan naa may bëri sans perte mbéy bambara may bëri. suma papa tey ñu bëri bëri bëri seetaan na bëri li nga def ci làmb wala